celle qui vous rapproche de la réalité. Bon voilà, ça c'est mon ami Pape Ibrahim Kébé. Si le temps il y a fait buzz. On parle que de toi. Mais je vais inviter la vie. Comme tu viens souvent me voir, nous sommes toi. Bon Abdoulaye je nga man j'ai ay xarit sont xam Canada dañ donc yow wax ma là devant chez moi. devant chez Toto. l'école de commerce il est juste là en face. tu hein? ça c'est mon ami là dis-moi bonjour. donc les Sénégalais yi di parce que tu dit, pas aller moo c'était dans son livre là. par rapport à l'affaire wax nag. donc xam nga bi bi ñu jógee néew naa la dafa naan Sénégal boo demee di nga dellusiwaat. kii sama gaañ la nag kii nag kii sama bés gaañ la mi ngi nii Pape Ibra Kébé mi naan tu tubaab la. <laughs> wax leen Fodé. Fodé tubaab tubaab. waaw kii xam nga tu tubaab du jógewul tubaab. ah sama waaye nag am sama gars yoo ñi ñu ngi ñi ngi koy. ñoom laa ne woon bu fi ñëwee. naan si café wax wax ma looy naan. mais sinon. nam naa la. naka affaire yi. eh ah, waxoon naa la yow bu ñëwee naa defal vidéo. Pape Pape ñu ngi ñu ñëwoon si Sénégal. nekk bras droit Nafi Ngom Keïta

Mm-hmm. waaw loolu la man jàppal amul kenn ku ci jàppal benn xar ma yàlla. Mm-hmm. ndax tim noo xam ni yàgg-yàgg ci ci suuf mu ñu mujj daal. Mm-hmm. mais tim euh, amul ay parparloo ay kii di amul ci. waaw dëgg dëgg moo neex yàlla ci lépp ci en matière d'élégance financière bi ci nekk mooy. lépp loo xam ni tim euh, génne ko ci. ci ay fànn yu leer a leer ci lañ ci la nga teg daal mais amul leneen loo xam nekk na ci beneen du fànn yooyu la. wa salaamualeykum wa rahmatullahi taala ñaan yàlla dafa leen jàmm defal ko askan yëpp. Ah. sàmm leen sàmm njaboot bi sàmm askan yi dafa leen wér ak wér de dafa leen tànk yox sa dakk mm. te musal leen képp cat musal leen képp làmmiñ musal leen képp balaa musal leen képp saytaane musal leen képp pexe noonu ca nangu leen seen jàmm yàlla yëpp jégal leen seen i bàkkaar yëpp ci li ngeen bëgg yéen a xam yàlla ki yàlla defal defal leen ko fay ak ni ngeen ko bëggee

li ancien premier ministre wax naan kii tubaab la xam nga ne kii du tubaab. waaw kii jógee Touba. man Sénégal nekk Saloum Saloum man may. bool Bawol. Ah? ñu jël ko traité ko doon tubaab. donc voilà. Euh, Christian maa ngi lay woo néew naa yow bu ñëwee naa la ko paas maa ngi lay